journaliste euh, Ayoba alors euh, je pense que gis nga euh, réew mi li fi xew jamono ji ci wàllum information bëri na lool et la dernière en date muy communiqué bi commencé def polémique bu jógee assemblée nationale je pense que gis na gis nga ko comme comme ñëpp lan mooy sa xalaat ci communiqué bi déjà que am na ay démenti c'est pas signé euh, l'entête est, est, là parce qu'on a vu que si entête u assemblée lañ ci daal di teg bien vrai que c'est pas signé euh, yow ces sources de vérification et tout ça est-ce que vous pouvez con confirmer euh, la véracité ou bien l'authenticité de ce communiqué bon euh, d'abord li njëkk li njëkk li njëkk a fës mooy communiqué bi am na am na entête u assemblée Euh, nationale am na soowu république bi euh, donc euh, jusqu'à preuve du contraire je pense que ci assemblée assemblée la jógee li tax nag président bi si wu ko defu ci defu ci cachet loolu loolu lu ma jaaxal la aussi d'autant plus qu'un membre de de de l'hémicycle muy en la personne de Abdoulaye Wilane porte-parole du du parti si génn na démb di wax ni communiqué bi ñoom ñun ñu nekk seen biir. ñoo ko ñoo ko bind euh, d'abord communiqué bi boo ko liiree en son contenu mm-hmm. doo xam ndax c'est le gouvernement qui qui écrit doo xam ndax c'est le c'est c'est c'est c'est c'est euh, c'est c'est l'APR qui écrit ou Benno Bokk Yaakaar qui écrit parlementaire euh, ils utilisent les les mêmes éléments de langage c'est-à-dire euh, ils te dire que voilà euh, le Conseil constitutionnel a bien précisé que euh, la date Euh, de l'élection ne pouvait pas se tenir le 25 février. Euh, ils appellent aussi au dialogue. Euh, répondre au dialogue du, président de la République. En gros, c'est les de langage, les éléments de langage utilisés par euh, Abdou Mbow euh, devant les chaînes françaises, euh, nu mu tuddati le porte-parole gouvernement Abdou Karim Fofana aussi et mm-hmm. il a utilisé les mêmes éléments de langage donc tu dis après tu donnes raison à Abdoulaye Wilane quand il dit que c'est des c'est des c'est des c'est des gens de Benno Bokk Yaakaar ou de l'APR qui ont écrit et qui se, qui en tout état de cause euh, li muy li muy li muy li muy wone rek mooy que euh, peut-être que nangu nañ ni euh, léegi loi bi moom kase nañ ko que ils ont amené des justificatifs que euh, dóor ci kaw conseil constitutionnel bi mais en tout cas de cause mooy euh, l'acte ils ont pris acte cest à le maître mot c'est on a pris acte donc euh, de la décision du conseil constitutionnel et qu'il faut aller euh, vers maintenant des consultations te loolu foofu laa d'accordul ak ñoom c'est-à-dire quand le conseil constitutionnel décide quand le conseil constitutionnel publie une décision cette décision s'impose à tout le monde même au président de la République il n'y a pas à consulter qui que ce soit il doit fixer une date euh, d'autant plus que le conseil constitutionnel a cassé le décret qu'il a qu'il a publié le 3 février ou qu'il a pris le 3 février du 2 convoquant le collège électoral et qu'il a aussi cassé cette loi qui qui, qui portait report euh, de l'élection présidentielle donc amatul consultation pour man. lu ñu commencé di gis la euh, jamono ji depuis un certain euh, temps disons depuis mbirum proclamation résultat yi am contestation muy conseil constitutionnel di wax ñu gis ñuy contester ñu nga xamante ni dañuy assemblée nationale daal dina fi voté président de la république génnee fi décret ba ñu daal di koy. dindiwaat euh, indiwaat fi leneen aujourd'hui on voit encore l'Assemblée nationale qui vient contester et tout ça loolu qu'est-ce qui peut justifier ce genre d'acte parce que loolu ci lañ sukkandiku pour annuler suñu élection en fait ci sur fond de crise institutionnelle loolu lañ bëgg installer loolu lañ installer ci bopp ni ñi que ni entre le parlement entre la justice et entre l'exécutif il y a bel et bien une crise ou entre le parlement entre la justice il y euh, bi Euh, jubootul ak euh, wala am na ay problème ak euh, pouvoir législatif bi exécutif bi taxaw fële ni moom day réglé day réglé day réglé day réglé problème bu moo tax président bi jaakaarlook askan bi le trois le 3 février ni leen élection bi mënatul nekk parce que euh, ñaari institution yi ku ci nekk déggootul ak sa morom donc y a y a y a une crise institutionnelle. ci loolu lañu nekk ba ci loolu lañu nekk ba léegi pour justifier que ni y a bel et bien une crise institutionnelle boo gisee communiqué bu kii bu conseil constitutionnel génnee ji décision tey euh, démb euh, assemblée nationale génne communiqué di xarab li nga xamante ni mooy décision bi teg ay teg ay arguments juridiques yoo xamante ni teguwul fenn parce que conseil constitutionnel c'est le seul juge moom rek pour jël ay décisions sur euh, sur sur la question électorale euh, da ngay da ngay gis ni ba léegi ñu ngi ci seen justification boobu que nii dafa am une crise institutionnelle au Sénégal entre le Parlement et l'institution judiciaire. Et, et justement est-ce qu'il n'y a pas crise? Il n'y a jamais eu crise en fait. Il n'y a jamais eu de crise parce que le Parlement fonctionne. Euh, la justice fonctionne bien euh, d'ailleurs gis nga temps yi yëpp ñu ngi libérer ay détenus euh, procureur bi def ay ay ordre de libération d'office mhm. euh, exécutif bi président bi mi ngi doxal donc il n'y a aucune crise ban crise moo am est-ce que dafa est-ce que est-ce que assemblée nationale dafa am dafa am benn benn bis rek boo xamante ni président bi dafa woote session ñu ni kenn du kenn déroulé session bi parce que y a tel ou tel ou problème justice bi est-ce que dañoo toog benn bis war a juger nit ñu ni amul benn euh, amul amul amul benn juge bu ñëw parce que juge dañoo grève parce que tel ou tel problème dafa am non amul juge amul amul amul kii amul crise astu euh, crise bi dañu ko dañu ko dañu ko jaay jaay jaay ko askan bi alors que alors que amul y y avait rien derrière que des soupçons soupçon rek ci ay soupçon lañ tënku président bi ci ay position la tënku que ni euh, waa PDS dañoo bind communiqué comme communiqué bi assemblée def d'ailleurs démb mhm. communiqué bu amul sceau amul tampon amul signature rien du tout accusé deux juges deux honorables juges de corruption euh, d'ailleurs sax kenn ki bu mu demee porter plainte mënul porter plainte contre PDS dafa porter plainte contre X parce que communiqué bi amul woon kenn koo xamante ni moo jël responsabilité am daal di ciy def sceau PDS wala mu def ci signature amul tampon donc ci loolu lañu sukkandiku tuumal ay ñaari juge euh, wax ni euh, léegi foog ñu ubbi commission d'enquête parlementaire pour leeral Euh, tuuma yooyu noonu ah, c'est ça ça c'est en fait c'est aberrant parce que soo lee nit ki pour man da ngay indi ay preuves d'abord teg ko ci table procureur général ko surtout lay un juge teg ko ci table procureur général près la cour suprême mu ñëw topp leen euh, peut-être que ñoom am nañ seen peut-être seen i yoo xamante ni saa yu ñu yoree seen i preuve médias yooyu daal di koy daal di koy diffuser askan bi xam ni kat. pourtant ñoom ils soutiennent Mordicus qu'ils ont des preuves parce que nee nañ am nañ ay preuves même sonores des des des images et tout ça loolu bi boo amee ay preuves ubbi enquête parlementaire enquête parlementaire. sax man boo demee damay verser sama tour ci ay résolution pour ubbi enquête euh, commission enquête parlementaire sous la base d'un simple tweet que j'ai fait pour donner une information le 20 février avant la source officielle pour supposer que j'ai violé les secrets de délibération du Conseil constitutionnel alors que c'est archi faux j'ai violé aucune aucun secret de délibération violé secret de délibération mooy wax ni jour bi nga xamante ni dañ doon délibéré wala dañ doon vider recours Karim Wade euh, sur les sept juges quatre ce ces quatre juges sont tel tel tel ma cité ay trois juges ont jeté contre ma cité tamit seeni non loolu mooy violer le secret de délibération mais j'ai pas mm. violé le secret de délibération j'ai donné une information avant la source officielle et ça on ne peut pas reprocher ça à un journaliste léegi nag boo sukkandikoo ci loolu ni journaliste boobu dafa nekk connivence avec les deux juges avec le candidat de la majorité Amadou Ba ou avec Thierno Alassane Sall parce qu'on m'a vu avec lui euh, chez lui se photographier euh, parce qu'on prenait un thé ensemble nga ni dañoo nekk ñoom ñëpp. Euh, et loolu c'est avéré parce que dalal naa fi Saliou Dieng qui est d'ailleurs euh, ku ku ku nekk ku yëngu lool ci euh, parti démocratique sénégalais moom loolu la wax. que ni euh, quelques heures avant xawma quelques jours euh, en tout cas très récent gis nañ la euh, avec une certaine proximité avec Thierno Alassane Sall bi nga xam ni d'ailleurs moom moo accusé sax Karim Wade ni dafa am binationalité est-ce que est-ce que loolu c'est vrai et quest a été c'est vrai bien sûr lan moo motivé woon aujourd'hui bon quand on parle d'une certaine proximité benn yoon boobu laa mos a gis Thierno Alassane Sall et c'était c'était kañ la woon bon là là je me souviens pas précisément de la date, mais c'est juste avant qu'il dépose son, son recours. Et c'est bien, c'est bien avant que j'ai fait mon tweet là sur, euh, sur, sur, la nationalité, la double nationalité de Karim Wad. Et tiens, la Sansal m'a contacté bien avant cette histoire-là, parce que cette histoire a débuté le 13, euh, le 13, janvier, le 13 janvier, quand j'ai fait mon tweet, quand j'ai recherché euh, le, le, nom de Karim Wad sur le fichier électoral français que je l'ai trouvé. que j'ai publié que qu'il n'était pas exclusivement sénégalais comme il l'avait déclaré euh, dans sa déclaration ou dans son dossier euh, qu'il a déposé euh, au niveau du Conseil constitutionnel. Euh, Thierno Alassane Sall m'a contacté le 11, donc c'est bien avant son par via via un de ses de ses collaborateurs pour wax daf ma bëgg a rencontrer parce qu'on s'était